salaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala académie mbokk seen xarala académie ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen sant bu baax ci topp bi ñuy topp euh, bon di wax ni euh, tey ci samedi dañoo préparé woon benn live streaming malheureusement serveur bi bi ma doon live demul parce que connexion bi dafa yeexoon trop bon comme ni ñu ko xamee rek Sénégal comme amuñ yenn connexion stable yi man aussi connexion bi ma yor ak zone bi ma nekk peut-être loolu moo tax mais connexion bi doxul woon comme ni mu waroon doxee loolu moom moo taxoon ñu arrêté live voilà. bon di jégaluwaat ñëpp bu baax a baax di wax ni euh, dañ koy def euh, vidéo bi comment créer un site avec WordPress d'A à Z dama lay montrer madame lak la ñu war créer bon c'est à vous aussi de décider si on on devrait faire les vidéos en français ou en wolof whatever bon tout ce qu'on fait c'est de vous aider à créer un site WordPress de A à Z voilà donc un site e-commerce bon on va créer des sites comme ceci bon c'est un thème WordPress euh, un peu nice comme ça comme vous le voyez bon si vous m'avez ni lañ bëgg défar wala bu mel voilà yéenay choisir ok c'est bon Voilà, yu melni wala bon ok bon damay slider euh, hmm. bon je vais faire lecture ou lire ok d'accord bon avant ñuy commencer euh, ñu def site bi ñu bëgg ñëw si yenn détails wax leen lan mooy e-commerce ak lan moo tax pourquoi ñu ngeen war a amee site e-commerce waaw parce que e-commerce dafa bëri dafa am mythe bu si nekk ñu bëri duñ leen wax ce qui est réellement e-commerce juste duñu lay wan benn site boo xam mi ngi dox nga mën a dem site bi nga commandé voilà bon dafa am acteurs yu bëri yoo xamante ni ñoo composé e-commerce loolu dinañ si ñëw ok e-commerce mooy lan euh, li njëkk ñëw si xel mooy jënd ak jaay. maanaam am site si si net bi site boo xam ne nit ki dafay dem mu def benn commande ñu daal koy livré bon loolu mooy li nga xamante ni mooy njëkk ñëw si xel c'est pas mal c'est pas faux aussi ok mais commerce dafa yaatu dafa yor mën nañu wax ni ñu si bëri am na acteur logistique maanaam koo xamante ni moom mooy gérer produit bi ni duggee si magasin bi ni ni mu nekkee si stock bi ba mu ko livré si bi souvent acteur boobu ñu bëri dañ koy fàtte moo tax ñu bëri euh, problème boobu dañ koy am day am commandé seen sit mën a toog 24 heures mënoo 48 heures te kenn du ko livré te loolu baaxul day tax site bi kenn dootu si dugg wala dañ naan le site n'est pas fiable te loolu image bu bon la si koo xamante ni da ngay jaay si internet bi bëgg ñu xam li ngay jaay ok. beneen bi soob am na acteur paiement ñi nga xamante ni bon li ñu naan invoicing ou billing c'est-à-dire facturation ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer wàllu paiement bi comme par exemple euh, am na acteurs yoo xamante ni si Sénégal sax ñoom vraiment ils sont populaires euh, tamit ñi ngi def le job comme il faut quoi voilà si côté boobu noonu ñu ñu lay permettre ñu mën la fay par exemple ñu ñëw ci site de site commandé fi mën a fay par opérateur yi nga xamante ñoom ñoo fi nekk bon opérateur yi ñi nga xam ne ñëpp am na monnaie voilà voilà du ma nekk fii de publicité publi publicité kenn mais bon xam ngeen opérateur yooyu noonu ok kon képp kuy def site e-commerce war nga xalaat loolu man sama site bu bu si kenn jënd naka lay def ba fay ndax dama koy livrer mu fay wala day fay ak benn opérateur de monnaie au Sénégal fay ko en ligne wala benn opérateur étranger lay fay wala day fay par carte Ben benn vous bu kenn commandé kan mooy euh, logistique ma livraison bi je gère, koy gérer man dama am équipe de livreur interne wala damay jël benn service ou une euh, entreprise de livreur de livraison pour me gérer livraison si c'est tellement important de penser à ça ok lu may wax chaque jour par exemple souvent damay am benn client mu ñëw ni ma Ousseynou dama soxla nga defal ma e-commerce bon li ma koy njëkk a laaj mooy ndax am nga benn page Facebook wala Instagram wala Twitter wala WhatsApp ndax yaa ngi si jaay ñaata client nga am parce que bëgguma ñëw defal la site bi nga xool toog 3 4 mois gisoo benn commande nga ni kii lu ma defal baaxul fekk si yow la da nga war a positionné wu ba pare man lu ma leen di conseiller mooy ngeen am ay page si réseaux sociaux yi si page yooyu nag après mën nga créer benn site. ñooñu nga mën leen yóbbu foofu directement loolu laa leen di conseiller quoi mu nekk benn conseil boo xamante ni bon dund naa ko benn expérience la quoi ok donc pourquoi ñu war a am benn site en ligne vendre en ligne moo nekk li nga xamante ni moo gën a gaaw si nga livrer benn marchandise imagine tey nga soxla benn produit boo xamante dafa nekk Dakar yow yaa ngi dëkk euh, Thiès nga war a jóge Thiès dem ba Dakar jënd produit bi demaat ñibbiwaat Thiès da ngay perte temps da ngay perte xaalis te dañ ciy sonn léegi bu nekkee site en ligne la site bi da nga commander tak soit am nañ dépôt wala am nañ équipe de livreur boo xam ne bu gaaw la moo xam moto la wala drone la <laughs> docteur drone maa ngi lay bégué ok wala drone la yooyu yëpp mën na nekk ok donc moom moo gën a gaaw da lay day tax nga gagné temps ak tamit li nga waroon dépense si xaalis doo ko dépense mooy gën a yomb bayam day permettre ku moom boutique bi mu générer plus de revenu parce que imagine nga am benn boutique physique boo xamante da ngay fay électricité da ngay euh, bon peut-être voilà éviter site e-commerce voilà nga am tamit ay euh, prospect leads quoi par exemple site bi bu kenn duggee na fa dem boutique wala fekk page suivre ba mujj nga convaincre kooku mu nangu di produit d'accord donc buñ paré ci quand côté boobu wax naa euh, euh lutax ngeen wara am boutique en ligne dama len wax tay euh, yan choix technologique ngeen ma def c'est-à-dire la nga meuna utiliser pour def ben boutique en ligne ok loolu c'est important aussi nga comprendre loolu avant ngay lancer wu. parce que bo xasse ba lancer site ba commencer ko defar mënatoo war ginnaaw wala tamit day mettre trop voilà double travail lay nek voilà. pour éviter loolu premier choix waxna len leen que ci réseaux sociaux yi ngeen bok ci groupe yi jënde jaay. Instagram Twitter WhatsApp Facebook ok Ben, bi sax mën nga mën nga premier choix mën mën nga xalaat non man sama développeur maîtriser na PHP wala maîtriser na Python wala maîtriser na JavaScript est-ce que duma ko jox mu defal ko directement ak technologie yooyu noonu hmm. ok parce que damay jot ay euh, souvent ay question ndax dama war a coder pur wala coder from scratch wala utiliser benn framework wala CMS bon juste ben ben lu ma di wax mooy li nga xamante mënoo def langage pur c'est-à-dire coder en Python benn fonctionnalité buy afficher liste de produits boo ko mënul def en Python c'est pas la peine ngay jàng parce que nga directement c'est c'est possible quoi mën ko def ak Python mais Django moo gën a gaaw wala nu koy gérer moo gën rapide wala moo ëpp sécurité que ma def langue langage natif voilà deuxièmement nga def utiliser un framework des frameworks comme Django Laravel Ruby on Rails mu nekk framework yu rapide yu gaaw yo xam mën nga def taf-taf n'importe quelle application application bu mën a soxla mën nga ko def ci ak framework yooyu nii bon application bo soxla wala parce que framework yi ay NASA dañ koy utiliser bul xam ñaar données la Instagram dañ utiliser framework yi kon bon nek na ay euh, framework yo xam mën nga def lo bëgg def ok bu mu mujj moy choix choix bu mujj bi bu ñu bari euh, tamu moy CMS CMS bu ñëk dañoo wax <laughs> je me rappelle quoi <laughs> Bon, bon, dit CMS. Non, tu n'es pas un développeur. Un développeur ne doit pas utiliser un CMS. Oui, c'est normal. Quand tu es débutant, bon, là, il y a des leçons. Voilà. Mais vraiment, vous n'êtes un businessman. Voilà, surtout, surtout, nous ce marché freelance. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que nous avons un client, le délai est court. Il y a aussi des concurrents. da ngay xool ben technologie que xam ne da nga koy utiliser euh, day mën li da nga li nga soxla da nga ko si bon CMS nag ñoom ñoo pour répondre si genre question yooyu noonu voilà lu si PrestaShop pour def ay boutique en ligne qu'est-ce am WordPress WordPress nous avons des boutique en ligne nous avons def site d'information, 33 des sites internet sont sur WordPress 33 si vous sites yi visiter 33 WordPress ben vous savez Sénégal je pense c'est 99,99% <laughs> euh, des sites sur WordPress quoi voilà si du Sénégal c'est c'est WordPress mais c'est normal voilà voilà euh, Drupal voilà bon site état c'est sur Drupal quoi <laughs> bon état on n'a pas bon des des gens capables de de créer un WordPress ou bien on les a pas donné les moyens qu'il faut pour qu'ils le fassent bon ou bien il y a on n'a pas d'intérêt. Jusqu'à présent, l'État utilise ses, CMS. C'est facile de concevoir un CMS. Voilà, ça, c'est pas compliqué. Ce n'est pas notre sujet du débat. Ok. Il y a aussi Oscar, il est sur, sous Django. Oscar, ben framework, bon, ben CMS, le bon, c'est Django. Pour e-commerce, qu'est-ce que c'est que quoi peut-être bon si ça vous intéresse vraiment vous ngeen ko bind commentaire vous mu faire defal tutoriel complet comment créer un site e-commerce avec Python Django ou avec Python Oscar d'accord les prérequis bon pour créer un site aussi il y a y a des prérequis bon dama ko xaw a yaatal bu njëkk mooy da nga soxla hébergement comme par exemple bon doon créer une boutique physique da ngay soxla foo denc produit non voilà fii tamit da nga soxla foo denc produit c'est net bi voilà bon pour me résumer le ko noonu rek mu gën a yomb léegi loolu moom la ñu espace d'hébergement da nga soxla benn nom de domaine par exemple tey bu kenn tàppee Ousseynou Diop point com koo xam na lu muy gis foofu voilà loolu c'est la même chose bu nekkee tamit da nga bëgg créer une boutique en ligne Hmm, benn bi stop mooy certificat SSL ou TLS par exemple ce site bi mu nekk ci HTTPS parce que tamit site boo xam day collecté day jël ay données jàmbur nekkul HTTPS c'est pas sûr même bu même si HTTPS nekkul loo xamante ni lu sûr la mais bon moo gën a dal xel quoi ok bon c'est c'est des questions de sécurité quoi aussi CMS yi boo koy utiliser da ngay am benn thème adapté quoi c'est pas la peine nga nekk fii di créer lu nekk da ngay am benn thème rek boo xamante ni da nga ko mën a personnaliser facilement c'est mieux d'accord euh, pour hébergement tout ça bu nekkee da ngeen soxla mën ngeen ma contacter man mën naa leen ko defal si prix bu gën a yomb sama hébergement yëpp dama si installé WordPress defal la certificat SSL espace bu yaatu site performant voilà si hébergement yu may offrir yëpp ok. Euh, mën nga tamit def en local par exemple bu nekké da nga euh, amoo connexion nga ni léegi dama koy def en local bon paré do kay uploader manam do kay koy ci net bi boobu mën nga utiliser zamp wala wamp ben web service web server quoi ak benn thème euh, adapt ok je pense que ok let's go donc li ñu jëk def moy lan moy dama len di wan bu nekké da nga bëgg da nga bëgg a def en local pour hébergement amna liste hébergeur gratuit yo xam def na ko muy ni vais partager lien bi après hmm, léegi da Exemple, installer exemple. Hmm. installer apachefriends.org index télécharger man installer nako vais c'est pas la peine vais installer wat exemple. len di hmm. donc exemple euh, mu ngi nii installé na da ngay nga def yes yes ba mu dugg léegi bu duggee da ngay gis comme par exemple lu mel ni moo nekk nii Xampp comme ni nga gisee nii ok comme ni nga gisee voilà léegi boo installé Xampp ba pare da ngay da ngay lu ñu naan WordPress boo te moo nekk nii dinañ defal lien bi nga cliquer télécharger daal koy télécharger ok léegi dañuy def par exemple mu ñuy installer WordPress en local bon imaginons on a Xampp on a aussi WordPress télécharge nañ leen ba pare da ngay ñëw ah, je pense que am na je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas si j'ai déjà téléchargé WordPress ou non ah, bon maa ngi di xool de gisuma fii WordPress parce qu'il y a W aw ma liste xaaral ma tàppe ba xam naa gis euh, W WordPress bon un WordPress fii non est-ce que du bon xaaral ma xool bi ba xam ba xam WordPress bi la wala du moom wa WordPress mo nek ni non wala du WordPress pardon c'est pas WordPress donc damay télécharger WordPress bi bon ana site bi ma dem si net bi télécharger ko directement télécharger ok donc manque ngi télécharger sama connexion bi dafa xaw a voilà le temps que muy ñew ma wan len zamp nu muy mel bon, boo installé Xampp da ngay dem directement si localhost bu nekkee serveur bi démarré na bu serveur bi démarré wul mën nga ñëw fii nii si dossier Xampp am na def Xampp euh, anti ah, affaire bi sax bon dama gëj a codé en PHP j'ai beaucoup oublié mais bon mini, ngi nii Xampp contrôle moo nekk nii dama gëj a codé en PHP quoi c'est normal aussi ok donc euh, lii lay ñëwee nga bës star star nga xool ndax démarré na wala bu verté ni nga xam démarré na bu nekkee beneen couleur nga def ko si commentaire yi ma xool ban erreur moom nga am ok moo tax local host bi ñëwul léegi ñu def ni local host comme ni nga exemple moo nekk ni installé naa ko léegi fu ma bëgg a dem mooy PHP may admin yéen ngi suivre état bi da ngay installé zamp nga taal zamp dem PHP may admin léegi fii lay télé créer benn base donnée bon base donnée comme benn fichier Excel la rek pour garder ay données la ok pour mu gën a yomb Les da def nouveau base de données nouvelle base de données autant pour moi Les euh, nan lañ tuddee suñu site bizarre. sax <laughs> jaay non c'est bon c'est comme ça non jaay ma bon Mais nekkee nag juum aussi ngeen jégal ma ko ma moo ok c'est bon donc on va essayer de voir bon pour base de données d'habitude moi man j'utilise euh, général UTF général CS China quelque chose comme ça UTF-8 euh, UTF-8 UTF-8 bi la bëgg xool ni bon bi nekk nii baax na léegi nga bës créer ok léegi créer nañ suñu base de données léegi bu def dara bàyyi ko noonu léegi ñu ñëw su téléchargement WordPress bi léegi da ngay jël dossier bi ñu copier ko bon nga def clic droit par exemple def copier nga ñëw fii nii disque local gis na nga ñëw zamp acheter dox nga ñëw fii nii léegi nga def coller léegi fii laa koy coller quoi léegi boo coller par da ngay defaat clic droit nga daal koy extraire donc extraire ici léegi da nga koy extraire gis nga dossier WordPress moo nekk nii dossier bul nekk nga renommé ko quoi bon dama koy renommé bind si jaay ma jaay ok léegi dossier bi moo nekk nii dañuy fichier yi moom moom moo nekk nii ok léegi euh, léegi bu ñu paree nu ñuy def dañuy ñëw fii ñu def localhost yeneen gis ci kaw ñu def noowu site bi site bi nu mu tudd jaay ma nañ ko tuddee jaay ma jaay ma moo nekk nii nga bës entré léegi ñu xaar mu ñëw mën na jël un peu de temps mais bon dina ñëw quoi ok gis nga comme ni nga gisee nii prérequis il va falloir euh, réunir les informations suivantes pour que nous na léegi nom de la base de données nga ko jàpp nom d'utilisateur base de données nga ko jàpp mot de passe utilisateur ok ma wan leen loolu fu muy nom base de données mon nii mooy base de données bien créé sànq nom moo nekk nii utilisateur bi fan la wara a nekkati sax est-ce que du privilège je pense voilà route mo fi nek mo nek ni route la mot de passe amu si ok mo def mo mot de passe quoi mais da ngeen def mot de passe hein, bu nekkee da ngeen déployer en production ok hôte de base données hôte bi mo nek ni mooy local host anam sax hot no dot moo nekk nii local host la moo stoppaat sax la wax préfixe de table si vous souhaitez avoir plusieurs WordPress en même base de données préfixe de table préfixe bu nekkee table da nga si def benn préfixe mais bon ñu continuer c'est parti léegi ñu xaar ma gis na mu nom la base de données mooy bi ñu defoon sànq nan la tudd sax jaay ma ma le leen nom bi nom moo nekk ni jaay ma ok nom utilisateur nga def route

mot de passe bi généré bon je vais faire cacher def mot de passe très faible non bon mot de passe bu faible lay quoi je m'en fous tey nga def confirmer mot de passe da ah. <laughs> juste pour vidéo euh, euh, email administrateur bon pour le moment damay faire euh, <laughs> ok. demander au moteur de bon pour index site par exemple sit bi Google mën ko gis wala bañ ko gis bu la neexee bañ ko gis comme on est en local installer WordPress ok léegi ñu installé ko léegi xoolal ndax information yi baax na balaa ngay dem day euh, boobal la def sax ok c'est léegi ñu def installer ne pas enregistrer ok léegi mu ngi installé WordPress ñu xaar tuuti mu ñëw. comme que quel succès WordPress installé merci et profitez bien mu ne léegi WordPress installé nako normal léegi mu lañ defante woon si la je pense mot de c'était euh, un peu weak bon c'est normal quand même damay cliquer ni def se connecter bon ne pas ok léegi ce site mu ngi nii am site e-commerce voilà léegi suñu site bi pare en local léegi deuxième bi dam len di wan nak ngay installer WordPress ci ben serveur voilà bon imaginer tay ma jaay la benn serveur ok léegi bon amna serveur yu bëri mais damay dem ci sama hébergement bi bi bambou point com une fois là je vais me connecter avec ben mot de passe bu ma yor fii ak ben ordinateur ok léegi fini nii euh, bon damay xol sama service yi fii benn serveur bu mo am fi. bëri naa serveur ah hein merci aux clients pour la confiance vraiment vous êtes les meilleurs bon je pense que xam hmm, nga connecté aussi panel bi xool ok donc ce benn serveur mon nekk les léegi dama leen war nu installer WordPress sur serveur comme par exemple bu la jaayee serveur boo xamante ni dañu ko mën a installer premièrement vais créer un sous-domaine bu nekkee am de sous-domaine moo créer c'est quelque part domaine mon nekk donc euh, voilà xarala point bi moy e-commerce bi donc créé naa sous domaine bi pare bul neex te nga créer benen jaay par exemple jaay ma afro com je fais un virgule point com léegi nga def ni jaay ok léegi def nañ jaay ba pare dañuy ñëwaat ci accueil bi fii am na lu ñu naan soft skills moo nekk nii da lay permettre nga mën a installer application yu bëri loolu damay choisir WordPress soft skills bon bon léegi moo nekk nii mais da lay wax ndax da ngaa bëgg benn installation ñu ni ko waaw léegi nga ñëw fii nii cliquer léegi da lay wax version WordPress bi bon mujjee génn nañu jël pour question de sécurité léegi ñu def HTTPS ñu choisir benn domaine domaine ban la war a jël jaayama la jël ñu jël jaayama. léegi mu ne ndax da nga koy installé dossier www non non jël ma bi mu ni amul SSL mais garaawul ñu def ko HTTP seulement ko pas problème garaawul jarul ñu def certificat léegi site bi dalay laaj noo tuddee site bi bon jaay ma ñu def lañ jaay mu jumee si olof aussi ngeen baal ma quoi c'est pas normal léegi euh, xaral la def bon xaama masqué ko def benn mot de passe bu yomb comme ma def feere lay def ok admin arroba diaman point promofm point com mot de passe mun ma baaxul mais pas pas de moom laay utiliser léegi ñu xool langue bi français c'est bon léegi fii nii mun la nga choisir benn moom mën nañ choisir benn par défaut def installer installation boo lay laaj benn adresse boo xamante ne bu ko installé pare mën na la fa envoyé détails yi quoi lii tamit c'est important bu nekkee installation bi jàllul affaire yooyu noonu léegi ñu def installation léegi ñu xaar mu ñëw eh daf ma xar de pas de problème je pense j'ai fait quoi A A R L A oh là là ici il a fait ses xarala bi quoi mais pas de souci on va gérer ça donc installation bi ñëw na mun la légui demal jaay ma point pro oh what the fuck is waaw c'est pas problème hmm. Hmm. ah y a un problème hein. ok bon mu ngi ni c'est quoi le problème pourquoi sànq ñëwul ah ok ñëw na mu ngi nii léegi site bu ñu créé moo nekk lii léegi site bii lañ créé léegi voilà comme ni nga ko gisee site bi mooy site bi nga xamante ne moom lañ créé man nag je préfère toujours coder ci serveur bi quoi coder directement quoi au lieu ma nekk di coder ci kii bi si local bon pare yóbbu que si serveur parce que loolu dafa dafa yag y des dangers parce que meun nga def pare version du compatible wala a yenn problème donc ñun on préfère coder sur le serveur ok léegi même configuration meun nga def en local je vais vous montrer première chose moy da ngay installer ben thème fi ngay apparence WordPress mo nek ni fi ni mom moy site bi mën nga ci dem fi moy tableau de bord bi manam fi ngay fi ngay gérer ce site article pour bo bëggee bind ben article ben nga am bloc site média pour vous ajouter ay images, ay vidéos page pour vous créer ay page par exemple une page service page à propos commentaire pour nga dire commentaire vous nga que ne ñoom ce site comme ni nga dit apparence finir d'installer installer thème personnaliser un thème ajouter ay widget fi ngay ce menu fi ngay un en tête bi wala arrière plan tout ça extension pour installer extension parce que WordPress presque l'extension, extension la quoi loo d'abord. comme li Python ni et librairie WordPress aussi c'est la même chose à l'extension que ça fi ngay gisee utilisateur yi fii am outil pour bo importer des données wala nga bëgg exporter site bi wala nga xool site bi ndax sécurité bi wala santé bi tout ça d'accord donc euh, comme site bi ñëw na la première chose à faire c'est d'insérer notre thème pour installer thème bi dañuy bëss par thème mu laaj la pour nga ajouter thème Les thème aussi. pour noppalu da ngay dem nga jënd benn thème man mën naa la jaay ay thème boo ma contacter mën naa la jaay ay thème wala thème boo bëgg a jënd mën naa la ko jëndal ok bon te thème bi jënd naa ko bu yàgg moo tem mooy thème bi ñu doon wax jënd naa gis nga boo xoolee fii bi sax am na yeneen thème ñu a jënd mais man fii laay jëndee thème mooy thème forest point com point net moo nekk nii thème forest point net damay damay dem wan leen thème bi fu mu nekk téléchargement thème bi moo nekk nii léegi bon xam nga xam yóbbu ko si bureau bi pour mu gën a neex expliquer dama koy déplacer fii ok léegi déplacer naa ko si bureau bi première chose thème bi bu ñëwee da nga koy extraire non dama koy extraire juste dama leen wanaa nu ñuy créer site yi pour ngeen mën ko xam prochainement bu ngeen amee ay site léegi damay damay def extraire vers thème forest léegi mu ngi koy extraire parce que thème bi day bëri ay fichiers yu si nekk loolu moo tax extraction bi day day xaw a jël benn temps ok léegi bu ñëwee da ngay da ngay dugg si bi moo nekk nii voilà la euh, la première chose wala lu gën a am solo si mooy nga dugg documentation voilà surtout documentation léegi première chose mun la thème installation step léegi fii njëkk bés ñu xaar première chose moo nekk nii the quick installation is for first time installation of the on fresh WordPress muy léegi première chose mooy booy installé thème bi nooy def bul neexee liir vidéo bi bon man nag vidéo bi intéressé ma damay lire texte bi quoi vidéo day jël temps première chose mun la upload parent theme file you have two mu ni première chose mën nga dem sa FTP nga uploadé theme bi mu ni ko man nag duma ma mais dama koy installé direct bon ki da ngay extraire uploadé ko serveur bi mais dama leen wan lu gën a gaaw loolu léegi dañuy ñëw fii ñu def thème ñu def téléverser un thème léegi nga jël parcourir comme ni ngeen ko gisee boo dee parcourir nga ñëw bureau gis nga ñëw nañ bureau bi thème forest moo nekk nii thème bi moo nekk nii gis nga moo nekk story bella nga bës ouvrir léegi nga bës installé deuxième chose bu nekkee yaa ngi en local ba tey attends en local fan la woon sax moo nekk nii local bi dama nga ñëw thème nga dem ajouter waaw lu tax ñaari wuute ah ok c'est la même chose nga def téléverser en thème parcourir nga ñëw thème forest nga ñëw store bella nga bës installé c'est bon je pense comprendre ngeen léegi mu ngi nii da koy décompresser fii vite c'est la même chose da koy décompressé ba pare doo koy dugal léegi ñu xaar tuuti mu ñew c'est normal aussi c'est thème yi souvent des dis quoi motax ok léegi ñu xaar tuuti thème bi ñëw bu ñëwee rek ñu installé ko ok voilà fii nii en local gis nga mun ma ak thème bi ñëw na en local pare mais il y a des erreurs, une erreur est survenue, il pourrait avoir un problème avec WordPress.org ou la connexion. serveur. erreur yu bon dañuy nous activer activer thème Nous avons bi quoi parce connexion lay doxee moo tax c'est en local soxlawul yenn connexion mais bii comme connexion bi euh, dafa non xawlu yéex sax dafa yéex mais bon on s'adapte quoi on est je dis pas on est en Afrique mais bon on s'adapte quand même pour être sérieux d'accord donc thème bi ñëw na fii par exemple détail comme ni nga gisee nii thème bi moo nekk nii léegi deuxième chose lu mu ñu wax bon installer thème pare installation bi jàll na bon kii premier boobu wala gis nga mooy bu nekkee da nga bëgg a installer directement serveur bi da ngay def add new def upload thème uploadé thème bi gis nga moo nekk nga installé ko activé comme activé deuxième chose mooy vais dem apparence ba def begin installing plugin commencer à installer le plugin ok moo nekk nii léegi ñu bës le plugin yëpp nga daal sélectionné def action groupée def ni install install c'est en local mode, tax lépp sa machine la loolu moo tax moo gën a gaaw li serveur bi la te serveur bi connexion lay demee te tey connexion bi dafay yéex ok on s'adapte quand même yéexee ñu gaaw gaaw ñu yéex ok c'est c'est ça ah. hmm. ok bu nekkee da ngeen am benn question wala lu ngeen bëgg laaj aussi mën ngeen ko def ci commentaire yi euh, dinaa ci ñëw di wax ñëpp ñu abonné ci abonné ci chaîne bi daal koy partager vraiment parce que hmm,

mais on s'adapte quand même. C'est normal hein, parce que c'est normal mu yéex man xamul tax mais daal c'est normal c'est normal c'est normal quoi. hmm hmm hmm, mu war a yéex ni laa xamul thème bi dafa yàgg quoi mu dee ñëw ba tey bon xaama essayé euh, essayer ko ba xam ci parce que bu njëkk bi daf Il y a demul yàgg toog pourtant abonnement je bu baax la def bon je ne sais pas ce quoi le problème je connais pas même je connais même pas ce quoi le problème c'est un peu compliqué hein, parce que bon on a tout fait mais jusqu'à présent ne marche pas très bien mais en attendant rek on va s'adapter quoi léegi thème bi muy accès yegul léegi mu accès donc en local tamit mu ngi koy installé gis ni il a déjà il a déjà installé 1 sur 20 1 sur 20 quand même c'est c'est trop hein ok euh, ok bon installé na thème ba pare non euh, installé na ko léegi mu des activation ñu activer ko mooy production bi quoi directement fële léegi thème moo nekk nii comme ni ngeen gisee mu ngi koy activer léegi activer na ko pare léegi dañuy cliquer waat fii begin begin installing plugin léegi ñu def sélection tout Aliou Cissé maanaam sélectionné leen ñëpp rek def appliquer ok ok léegi muy appliqué ñu xaar tuuti mu ñëw euh, top ok léegi ñu xool en local bon accès wala bi tamit c'est c'est un peu long je ne sais pas pourquoi mais bon c'est c'est un c'est trop lent même ok je sais pas ok on va installer, mais activez vous quoi euh, un aussi parce que lui aussi installation sans ça dépend de l'hébergement et de ta connexion aussi Cet hébergement à sa connexion dépendent. dépendre bon mën naa pause vidéo aussi ñu installé ko ba pare ok bon léegi euh, installé na plugin yëpp li des mooy activer ko ok léegi dañuy dem fii pour activer ko <coughs> je m'excuse <coughs> léegi euh, dañuy activer plugin yi xama ma ñëw euh, plugin léegi muy ñëw ñu xaar mu ñëw pour ñu activer plugin yi ok euh, bon mënuñu installer un plugin mais si tu veux quoi mais ñun installer wuñu yeneen plugin plugin yu fi nekk rek activé. je pense que activer na require plugin yep voilà active activer na ko activer na plugin yep ok donc euh, deuxième étape bi ñu dem xool documentation bi lu ñu en local aussi daf mel na installer ok donc si nous defee loolu pare dañuy mais mon ni bu ñu installé du stop léegi ñu installé WordPress WooCommerce bon WooCommerce installé nañ ko paré am na tamit beneen extension bu ñu wax mu ni WooSidebar léegi ñu xool ko installé ko c'est important tamit euh, li ñu lay wax nga koy topp parce que euh, ñoom ñoo defar thème bi ñoo xam thème bi lan la laaj voilà bon comme yow defaroo thème bi ñu laa jox rek pour nga def donc je vais faire Woo non Sidebar je pense que c'est ça léegi lu mu wax mu ni Woo Side Bar bon installé na ko activé na ko ok c'est bon ça marche donc euh, am na contact form 7 mooy yëpp installé nañ ko je pense donc voilà léegi deuxième étape mooy lan ñu dem si ñu importer données yi parce que données par défaut yi aussi c'est important léegi ñu dem foofu fan la wax la la données yi nekk muy da ngay dem si outil maanaam tool yi nga def importer léegi ñu cliquer ci importer bi xool lu muy indi premièrement bu nekkee WordPress da nga koy mu ngi nii anam sax lancer l'importateur fi ngay bës léegi boo bësee lancer da ngay ñëw ma jël fichier bi léegi moom fan la wax fichier bi la nekk mu ni fichier bi da ngay ñëw ban partie sax nga def install run léegi def browser am na fu ñu def starbella point point xml. oh point naa sama écran. ok bon donc mon idée, léegi da ngay bés euh, parcourir Euh, euh installation voilà mon écrit. Je gis mon moo ouvrir télécharger téléverser les fichiers et les importer en local comme affaire bi ak ak ak ba tey bon mën nañ ko bàyyi noonu léegi ñu jéem a fii nii ok donc euh, léegi mu agsi bon prochainement moom foog mu wut connexion bu gaaw léegi nga bës fii sélectionné arala <laughs> ma con ok nga def envoyé léegi ñu xaar mu ñëw bon mën na jël temps mais après bu ñëwee rek ñëw na léegi moo nekk nii ñu wàccaat xool lu mu waxaat nga choisir heaven voilà léegi mu benn étape moo ñu importer les sliders c'est important WordPress moom um da ngay topp ko kii rek eh, tegtal kese voilà compliqué ou quoi donc da ngay topp tegtal wala, rek voilà lépp <laughs> nii nag boo bu nekkoon da nga code da A Z karaw doo ko dako d'accord d'accord d'accord donc mu ngi ñëw bon day jël benn temps bu ndaw rek mais après temps boobu bu rek léegi mën naa pause vidéo ba agsi ba mu agsi comme tey suñu connexion bi demewul noonu euh, donc euh, importer nañ données yu pare ñu demaat liir fii lu ñu wax bi mooy ñu importer slider import revolution slider donc pour importer slider dañuy ñëw fii comme ni nga gisee slider revolution ñu cliquer léegi euh, boo bësee dalay indi ci page bi nga war a importer slider yi ok ñu xaar mu ñëw léegi fii lay ñëw euh, ñu def importation manuelle léegi nga def cliquer ici léegi boo cliquer euh, nga def euh, nga def benn retour nii je pense da ngay def benn retour defa retour léegi détail fi mu nekk simple data par exemple simple data export slider mon écran, ni home slider nga def ouvrir léegi mu ni di importer slider yi slider diisul 186 kilobytes la léegi dugal nga slider ba pare ok ok ok ok ok Les bi stop euh, pour nga configurer site bi la ban page moy nek page première ban page moom moy nek deuxième page ok léegi euh, ñu xool page Dakar bi lu ñu jox ba xam am nañ tuuti site bu xaw a nice wala site bu xaw a rafet tuuti quoi ok on va voir et on s'adapte quoi d'accord donc page d'accueil bi moo nekk nii gis ngeen der bi nii bi amuñu ko woon comme ni ngeen ko gisee site bi nii la ñëwee première layout mais ñun wuñ lii pour nga gérer erreur bii da ngay dem ci réglage comme ni nga gisee nii nga bës lecture bu dee anglais lay indi reading léegi dangay def une page statique léegi mu laaj la page d'accueil bi bon nga xool fii buñ def accueil wala home wala quelque chose comme ça home euh, moo nekk nii nga def home fii nii nga choisir bloc ok ok nga def enregistrer dañu xaar ñu xoolaat ba xam changement am na wala amul soppiku am na wala amul euh, soppiku bi fan la war a nekk normalement war na am benn changement voilà comme ni nga gisee changement bi ñëw na indil na slide bi changement bi ñëw na comme ni nga gisee am nga sa site e-commerce <laughs> voilà comme ni nga gisee site bi ñëw na vraiment nekk site boo xamante ni site bu nice la je pense que bu yéen mooy siiw ba toll fii nii. comprendre ngeen naka la ñuy créer site léegi bu nekkee yi nga bëgg changer par exemple texte yi nekk fii nii texte yi bu nga changer da kii cliquer fii edit with page builder léegi nga bës fii nii du leen wan les basiques quoi fonctionnalité basique yoo xamante ni mën ngeen ko xam li des mën ngeen ko jàng si net bi quoi WordPress moom am nga tutoriel yu bëree bëree bëree bëree bëri si internet bi yoo xamante ni mën nga si jàng ok di wax ngeen partager vidéo bu baax ngeen jàppale ñeneen ñi aussi ñoom ñu bëgg xam nu ñuy créer site wala ñu comprendre ñu mën a xam ni existé na benn tutoriel boo xamante ne c'est en wolof euh, mu leen expliquer euh, nu ñuy créer site euh, genre vidéo yi aussi bu nekkee da ngeen ko bëgg par exemple benn vidéo boo xam dañuy ñëwoon leen naka ngay créer solution de A à Z aussi mën ngeen ko def ci commentaire yi dinaa ci ñëw bu baax a baax ok donc euh, mon nekk bon fii ah, c'est normal c'est la connexion quoi d'accord ah, on s'adapte d'accord d'accord d'accord les moyens laaj ndax euh, euh, bëgg modifier léegi ngay modifier bon ben modifier rek après modifier les ñu def lan euh, bon je faire rapide Bon, je vais faire 5 dollars. je vais faire sauvegarde les modifications dès boo sauvegardé sauvegardez c'est rapide bi ñëw faire bul mettre à jour ok Les nga bës pour cliquer pour quitter quoi ok bonne affaire peut-être bëgg nga changer ce euh, couleur site voilà, wala yow que non. pour changer ko apparence comme fii administration nga fan sax. Hum ok ok thème normalement war am benn partie bu ñu koy thème thème personnaliser personnaliser koy fenêtre hmm. d'accord d'accord d'accord bon c'est un peu hein. ok donc personnalisé bi moo nekk nii day laaj code couleur yi ba da nga bëgg a changer couleur site bi mën nga ko changer quoi ok moo ñu dem rapidement beneen côté beneen partie partie bu si gën a am solo comme boutique en ligne la mooy fii nii partie WooCommerce nag da dangay ñëw fii nii nga cliquer réglage léegi réglage moo ci ëpp solo pour nga def si site bi fu mu nekk lan ngay jaay adresse bu njëkk moo nekk nii bon je vais faire Sicap Mbao comme Skambalanec, bon, ville de Pékin, hein, je pense. Ville de Pékin, euh, Sénégal, Brazil non, I'm not in Sénégal, mon équipe, Sénégal. Mon code postal, je pense, c'est 17 000. donc va va des souffles. ou vendre Fang ngay non vendre dans tous les pays ou livrer pour la livrer adresse de la de base de la boutique ok Les boutiques, bi adresse bi TVA bu nekk mënoo activé bu la neexee code promo bu la neex activé ko léegi day laaj ban devise ngay utiliser bon CFA France Afrique centrale West ouest africaine moo nekk nii gauche bu la neexee gauche wala droite droite virgule wala point nombre décimal deux c'est bon les modifications c'est important quoi nga def adresse boutique bi benn bi stop mooy partie produit aussi euh, page bi boutique bi nekk mën nga def par exemple shop je pense ñii am nañ ko nga def shop bu nekkee image bu image activer les avis permettre les avis aux acheteurs certifiés si tu veux quoi deuxième chose c'est expédition madame côté livraison bi bon zone ajouter paiement côté paiement bi ndax par virement bancaire activer par chèque activer ndax dañuy fay à la livraison bu ñu la activé am na yenn solution yoo xam ne Sénégal la euh, ñoom tamit mën nga leen activer voilà du ma si def benn fii nii ok c'est bon donc def nañ euh, paiement yii nii boo defee pare da ngay bësaat ci suuf enregistré ok euh, beneen bi stop muy compte et confidentialité bi tam mën nga xool email mu def la email yi par exemple email de livre email bi ñuy livrer email nouveau commande nouvelle commande intégration mu laaj la yan service nga si bëgg intégré avancé mu am configuration avancée. di wax avez un yor euh, site WooCommerce am na benn affaire bu intéressant moo nekk nii WooCommerce admin le moom euh, plugin bu bees la bu WooCommerce génnee euh, vraiment plugin bu intéressant la quoi gis nga amagul sax version 1 bi voilà d'accord léegi def nañ partie boobu pare xam naa ñu bëri ñu ngi laaj mais léegi boo créer site bi pare nooy def ba administrer ko par exemple bu bëggee créer produit nooy def bu bëggee dugal benn produit boo bëggee tamit euh, comment on appelle ça gis commande yi nooy def ok boobu mooy deuxième partie bi pour léegi nga mën a ajouter ay produits fii ngay ñëw gis nga partie produit baa ngi nii nga def ajouter produit bul neexee nga ajouter catégorie aussi attribut wala étiquette donc produit la ñuy def ñu ajouter benn produit xool pam pam pam pam pam ok bon day laaj titre produit bi lan laa war a dugal Là, il hmm, léegi damay jaay benn <laughs> bon presque on mooy produit fii bon je vais faire produit 1. ok produit un aw ah, ma non non produit bi ngay def foofu fii bu nekk daa description bu gudd quoi ce produit mën nga def description long c'est bon deuxième chose mooy côté bi gis nga parti bi da ngay def ban catégorie la bokk bon un catégorise mooy cent catégorie am na pajama bu la neex nga def ko bon catégorie bu neex nga def ko léegi boo passé boo paree foofu danaan la nga def image produit yi par exemple client bi visité site ban image lay gis bu nekkee da nga am image yoo def fii nii mën nga jël benn image boo ko amul mën nga ñëw fii nii nga def sélection des fichiers léegi ma xool fii benn image bu ma am wala si bon je pense am wala téléchargement am naa fa waaye image xaaral ma xool sama image yu kii xarala yëpp fi laa ko def je pense pas ça je pas ça attends ok moo nekk nii baa ma jël bi dafa ouvrir ok léegi boo bësee ouvrir ba pare dangay wàcc bi suuf comme fii définir l'image produit euh, connexion bi c'est c'est un quoi et c'est normal aussi souvent mais def dima définir l'image du produit légui dala koy wan fii ci souf mo nek ni légui bi stop nga ajouter image par exemple yenn saa nga am ben produit comme par exemple téléphone à côté gauche côté droite côté écran kanam bi côté écran ginaaw bi mën nga ajouter yenen produit comme tay mo ma neexoon ma ajouter yenen produit léegi damay sélectionner trois produits légui def ajouter à la galerie les ajouter na trois produits les ben benn bi stop nga ajouter Hmm, ce kii euh, prix bi léegi prix dafa am ñaar bu nekkee dafa am promo bi mooy prix euh, normal bi léegi bu nekkee dama am produit promo damay def dix mille promo tamit promo bi aussi bul neex nga planifier ko voilà bu nga benn promo mais léegi promo mën nga ko planifier nga def lii nga def date bi quoi voilà ok c'est bon am na yenn attribut bul neex nga def ko bul neex bañ ko def ok Ben, partie de nga description this is euh, bon je vais écrire quelque chose comme ça this is a simple this is a simple example. c'est bon a simple product c'est bon product c'est bon ah ok c'est bon donc euh, def naa vous ba pare bon, vous def nga

léegi boo cliquer par exemple fii comme ni nga ko gisee indil nañu image produit bi léegi bu ne da nga bëgg plus de détail mën nga cliquer si produit bi dala yóbbu ci page détail bi pour nga gis yeneen image yi gis nga benn image yi nii beneen yi nii beneen yi nii ok léegi imaginer kenn mu mu commandé produit bi def ajouter au panier comme ni nga gis nii da ngay def voir le panier ok bon pour le moment panier bi defaguñ ko moo tax defuñ page pañe bi léegi dama leen wan fi ñu koy defee pour def page pañe bi da ngay ñëwaat commerce nga def réglage léegi normalement am na réglage fan mooy réglage so est-ce que du fi produit ok hmm, shop c'est amoon na fu ñuy régler page yi de mais gisuma foofu quoi avancé page pañe voilà mon nekk nii quoi pañe ni koy en anglais c'est carte c'est bon page validation commande euh, validation commande moi là de ça euh, donc c'est pas carte out voilà wala mon ni page mon compte à compte non non compte may mon compte mon nii condition générale vous n'êtes amna comprendre comme par exemple privacy mon ni ok c'est bon

léegi def euh, euh ajouter au panier bon c'est déjà ajouté voir le panier voilà léegi indi nañu si panier fini si kaw gis ñu icône panier bi mais après dañ ko régler gis na panier mo nek ni nii quatre produits mo nek bu neex nga wàññi quantité wala nga yok ya ya choisir léegi def naa ko un parce que un def mettre à jour quarante mille francs la dañ def valider la commande bi mooy dernière étape da kay wax non non def. entreprise bu nekkee am na ko def pays def noderie gis nga moo nekk nii léegi ñu essayer def benn commande xool ñu def par exemple Ousseynou Diop pays Sénégal Sénégal euh, bon Sikap Mbao Sikap ville de Pikine raison de Dakar bon lii après mën nga ko personnaliser quoi mais dès que gën a guddal vidéo bi peut-être euh, bu nekkee am ngeen si problème mën nañ si def euh, vidéo léegi téléphone bon je vais mettre quelque chose Pour hein, xamante ni ça peut être quelque chose quoi c'est bon bon damay def ben mail mi at bon le mi at xarala tech ok son mail laay euh, donc les mu de paiement virement bancaire paiement par chèque wala paiement à la livraison def paiement à la livraison nga accepter des conditions def commander de voilà résumé commande mo nek ni moy numéro commande mu ngi date bi def mail total li ma wara les moyen de paiement mooy paiement à la livraison comme ni ngeen ko gisee nii adresse bi yëpp moo nekk quoi voilà donner commande bi léegi euh, page d'accueil bi bu nekkee da nga ci bëgg changer par exemple les nu mel fii nii comme nii mën nga ko changer fii nii da ngay ñëw nga def euh, personnaliser nga bës fii nii léegi boo personnaliser da lay wax euh, anam sax réglage de la page d'accueil moo nekk nii du Fidelity Disip Driver modifi image en tête du fi widget du fi léegi boo defee widget am na fii header kenn def fi dara fi tamit amul dara de carte eh, fi day wax que fi place ou kii bi ne place ou carte bi hmm, non xam xol carte bi voilà panier moo affiché voilà affiché la panier il terminé Je vais vous donner gars souvent moi, whitelist, list souhait quoi liste de souhait comme quelque chose comme ça je pense c'est wish list c'est ça non euh, hmm, panier ok bon c'est bon vous une panier c'est bon pour ku commande directement ok je pense que comprendre ngeen ajouté ngeen dem explorer parce que benn vidéo rek mënoo si voilà vidéo bi trop quoi. donc par exemple tey bu ma ajouté une par exemple ajouté normalement ko si kaw gis gis voir le panier la validation de la commande par exemple voir le panier bu nga ñëw ni bon la panier bi lu si nekk bu la neexee mën nga yokk fii def mettre à jour voilà ok je pense que comprendre ngeen léegi euh, def nañ commande ba pare les commandes fan la war a nekk voilà léegi da ngay ñëwaat ci tableau de bord par exemple bu la fekkoon page bi da ngay ñëw ni nga def tableau de bord léegi boo ñëwee tableau de bord nga wàcc ba commerce commande yi moo nekk nii 29 commandes lañ am parce que dafa am commande yoo xam dañ ko importé waale comme ni nga gisee nii sama commande moo nekk nii gis nga Ousseynou Diop léegi da ngay bës léegi boo bësee commande bi da indil détails yu commande bi par exemple mail bi adresse de livraison par exemple sa livreur lii nga koy jox ni ko léegi Ousseynou Diop la tudd Sicap dëkk Sicap Mbao mi ngi nekk Pikine Dakar adresse baa ngi nii voilà ok donc euh, commande mën nga changer def différentes actions par exemple tey commande bi moo nekk nii mën nga def benn action email de facturation envoyé à nouveau une notification bu nga envoyé waat waji ji benn notification bu la quoi nga def mettre à jour pour envoyer benn notification bu neexee def ay note ci commande bi ok bu nekkee dafa def remboursement bu neex nga def remboursement moo yaay xool li nga xamante ne bëgg def ci commande bi bu neex te mën nga changer état bi par exemple euh, terminé wala en attente wala attente paiement léegi bu nekkee da nga pare ci commande bi terminé da nga def terminé Les bon terminés terminé, mettre à jour je pense que comprendre bien bu baax baax fi commande régler ok comme vous l'avez les commandes commande terminé na produit euh, partie je pense que euh, là nañ partie yu nous y ajouter produit ajouter catégorie partie catégorie Hmm, catégorie boo ñëwee catégorie mu nga def fii benn catégorie aha ah, ah. bon café ah euh, hop jaay ma jaay ma ok jaay ma mu nga def select bi normalement ñoom ñoo ko war automatique euh, bon je pense comprendre ngeen <laughs> coupure courant dafa am sama courant bi dafa dem <laughs> c'est bizarre ça bon je pense que def nañ partie yu essentielle sur WordPress jàngeen tey nu ñuy créer ben site WordPress nuñ koy héberger bu nekk hébergement bi ngeen soxla tout ça mën ngeen ma envoyer mail wala message ci si description bi dinaa fa def contact yëpp boo defee bu ngeen ma contacter rek ma mën naa leen jëndal hébergement daan leen koy configurer mbokk de doon seen Xarala Academy yaakaar kontaan ngeen vidéo bu baax jàng ngeen créer site WordPress A à Z euh, di jégaluwaat bu baax baax ci dog-dog yi nga xamante ni amoon na si voilà merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel